salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyooti rek tey ñu am mbégte nag dalal madame Awa Ndiaye Tenerife suñu ne Tenerife nag suñu xel dem si nag île des Canaries euh, île bi nga xam ni euh, Séné africains yi voir sénégalais yi. Euh, bu ñuy jël bateau yi wala gaal yi fale la njëkk costé bu ñu costé nag moom la njëkk nag dajal en tant que interprète di fàttali ne moom mooy présidente association Jàppo bu Tenerife. waaye doon nekk aussi tam vice présidente de la coordination des associations euh, de Canaries voilà mu mel na tamit euh, comme ni ma ko waxee interprète la dafay interpréter en français anglais ak li nga xam ne moom mooy wolof ak li nga xam ne moom mooy espagnol. Mm-hmm. Euh, dañ lay nuyu madame Awa Ndiaye di la jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la nga nuyu ñi lay seetaan. waaw maa ngi leen di fay franchement man tamit di leen jaajëfal ci occasion bi ngeen ma jox pour waxtaan ak seen internautes yi. Euh, maa ngi leen di vraiment di ziar man mii di leen sargal euh, di leen wax ni jërëjëf ci réception bi ngeen ma recevoir fii ci seen bureau yi. tey bu bu ñu mënee def lim ndax mën nga ñu jox lim bi ñëw foofu euh, si ay immigré wala ñuy def immigration clandestine. waa moi je crois que lim bi c'est incalculable moi j'ai toujours dit j'ai toujours soutenu depuis 2006 que lim bi kenn mënu ko wax parce que boo xasee ba. dennoo ko bala nga toog ak kii doog a egsi am na lu mu lay nettali loo xam ne sax kenn mënu ko waxaat donc moi j'ai toujours dit que lim bi nit yi dañ doon estimer rek di évaluer à peu près mais que lim bi je pense que kenn xam ko sax. yan genre euh, gaal wala bateau bu fekkee ni am nga information yi la ñuy faral di jël ñoom. waaw en général nag ay pirogue lay nekk c'est des pirogues de pêche. Euh, bateau moom franchement euh, waaw bateau moom ñëwu fa bato bateau bu def de moi je me rappelle je crois que en gaal gi fa ñëwoon bi ëppoon nit. Euh, cent cinquante sept personnes moo ci nekkoon donc euh, c' est des normalement c' est des pirogues. ndax ay sénégalais rek lay doon wala am na yenn nationalité. non du nekk ay sénégalais en général actuellement ni peut-être dinañ yi ma mujj gis yi ñëw nii ay sénégalais rek ñoo ci ñëw mais on reçoit du tout il y a des nigériens il y a des maliens des gambiens euh, des sierra léonais sierra pardon donc xeet yëpp a ci nekk. est-ce que am na ñuy ñëw si ñoom euh, di changer. comme du nekk sénégalais ñun duñ sénégalais gambien lañu wala ñu ni voilà loolu c'est fréquent euh, mm-hmm. en général euh, peut-être ñiy organiser voyage yi dafa am directive yoo xam ne dañ leen koy jox avant ñu ñëw donc en général kenn ku ñëw le premier travail qu'on a à faire mooy li ñuy wax reconocimiento essayer de reconnaître de savoir qui est qui et en général ils ne donnent pas leur identité dañu wax exactement fan la ñu jógee léegi nag ñun Euh, en tant que interprète parce que man su ma taxawee en tant que interprète boo xam ne dañu peut-être jàpp ni ay sénégalais ngi ci dañuy fexe ma jéem a wax ak ñiy wax ak olof. Mm-hmm. c'est la même chose pour ceux qui parlent anglais parce que du coup ñun africain on se reconnaît mais tubaab bi mënu la wax exactement kan man mën naa xool nit leen non kii du sénégalais. Mm-hmm. donc euh, bu nigérien bi waxee mën naa la wax nigérien la bu malien bi waxee dinaa la wax malien la. Mm-hmm. en général c'est comme ça qu'on fait pour les léegi euh, est-ce que yow li ngay liggéey tubaab bi ñoom ñoo la ñoom ñoo la ko sant wala da nga sentir ni africaine la euh, il faut que aussi tamit ma taxaw euh, comment ça se passe et naka nga taxawee soit si fekkee association bi ñoom ñoo lay délégué wala tubaab bi la comment ça se passe. non non du question association association c'est une chose à part lii hmm. c'est un contrat qui me lie directement avec le gouvernement des îles Canaries parce que tamit il n'est pas donné à n'importe qui nga ñëw rek toog. comme immigration bi c'est en fait c'est un délit entre entre délit rek la nga def immigration clandestine donc il n'est pas dit que da ngay ñëw rek ni dama bëgg interpréter rek parce que am na ñoo xam ne dal na leen fa mm-hmm. au début bi affaire bi ëppee loxo y a des Sénégalais qui ont joué aux interprètes et ils sont terminés en prison parce que dañu dem ba finalement interprétariat bi juré de dire la vérité la mais ci biir wax ji dañuy dem ba wax lu ñu leen wax loowul léegi ñu dem ba gis ni ñoom en fait c'était même des mafiosi mhm. yoo xam ne ñooy wax loo xale yi li ñuy warul wax lu li ñu war a def ils sont ils sont terminés en euh, xale yi bu ñuy ñëwee si ban état la nekk piteux état bu délabré en général xam nga def euh, ñi nga xam ne xaw nañu xam ndox ñooy gën a ñëw je vais pas dire sain d'esprit mais ñooy gën a frais ils arrivent plus frais ki nga xam ne dafa jóge je te exemple l'exemple ñëw rek dem ba ca tefes ga rek gaal bi départ rek mu dugg dem mhm. kooku en général bu yegsee mooy gën a sonn ki nga xam ni euh, Kayaar la dëkk wala Thiaroye wala bu dëkk boo xam ne dëkk ndox la mhm. donc su suñu yegsee vraiment ils arrivent dans un état lamentable lamentable mhm. euh, Las Palmas Tenerife euh, ñoom tubaab yi naka la ñuy naka la ñuy dundee loolu c'est-à-dire tey ñoom est-ce que ñu ngi leen di protéger sax bu ñu ñëwee est-ce que ñu ngi leen jox seen ak ak yelleef comment ça se passe. waaw xam nga quand je dis les îles Canaries je dis l'Europe et qui dit Europe dit droit de l'homme mhm. donc tubaab dafa xam ak ak yelleefu doomu aadama. quand ils arrivent tu as beau être très très noir parce que <laughs> africain nga wala nègre nga comme on dit mais qui n'est pas très insultant non plus. Mhm. mais soo yegsee euh, dañ lay jox sa gëdd. le premier secours déjà bu ñu bu ñu détecté gaal gi rek dañuy dem jëli ko en en mer duñ ko bàyyi moom kenn dañuy dem remorquer indi donc su suñu yegsee ba costé le premier secours bi ñu lay jox peut bokk na ci euh, ñu gis ñu man par exemple en tant que nit ku ñu pour dalal seen xel déjà vous êtes bien arrivé seen mbokk a ngi nii léegi nag euh, en général bu ñu yegsee ba costé Croix-Rouge day taxaw la police maritime day taxaw le doyen des juges day taxaw bus yi dañ leen di teg pour mën leen acheminer ñi feebar ambulance yaa ngi taxaw pour assumer leen dans les hôpitaux donc bu ñu costé rek la première chose c'est un kit qu'on leur donne kit boo xam ni boo ubbee sac bi les premières euh, premières choses yi ñuy soxla genre brosse à dents yére pour changer mhm. euh, dàll pour changé loo xam ne lu diis la pour se couvrir en général bu ñu yegsee rek vraiment tubaab yi moom on a beau dire mais jàmbaar la Euh, bu ñu ñëwee si li nga xam ne moom moo leen di indi yaa ngi naan mm. xawoon na raar mais mm. léegi vague yi dafa dafa gën a dafa jéggi dayoo euh, lan lan nga yaakaar nii personnellement en tant que qu'africaine euh, moom mooy tax xale yi di jël gaal gi wala ñuy ñuy ñuy jël yoonu suuf si sax en général man par l'intermédiaire de mon association on avait en 2008 sax def benn le gouvernement nous avait financé un peu parce que gisoon nañ ni xale yi bu ñu yegsee ils arrivent vraiment désemparés mm-hmm. moi j'ai toujours soutenu que xëy na sensibilisation bi leen war a jox à la source ça veut que ci seen pays de départ yi man dama jàpp ni xëy na sensibilisation boobu moo des parce que nit ki war a jóg di risquer sa vie di dugg ci gaal yow boo toogee ki ñëw en vie li mu lay nettali tu te demandes ki nga xam ne ñëwaguñu pourquoi kon ñu war a ñëw man j'ai toujours soutenu que xëy na à mooy à la ni ñu leen waree defal des ateliers de sensibilisation moo des parce que on a war a def mm. gouvernement euh, état euh, lan ñan ñoo xam nga tam ñun dañu tàmm lu jóg rek ñu ni état mm-hmm. mais moi je crois qu'il y des organismes il y a des euh, associations euh, il y a des mm, ONG ñoo xam ne peut-être ñooñu ils doivent être chargés de sensibiliser les jeunes parce que tamit xëy na état tam mën na ko organiser mais man je vais pas être dans le sens de l'union rek ñu ne état moo ko war a def lool mhm. tamit xëy na am na ñeneen ñu ko war a def aussi est-ce que parents yi am ñu si par de responsabilité ma ñëw ndax euh, tey jii euh, dinaa dëkk kenn si koñ bi màggandoog moom euh, xëy na ñu jàngandoo wala sama dàqoon ko jàng tuuti tey mu tukki ñëw tabax ay immeuble wala tabax étage takk jabar indi jënd oto tey euh, say sa yaay wala sa kii naan xoola sa nawle bi euh, est-ce que doo def ni moom léeg sax yaay yi ñu bari ñooy takk jaay seen takkaay ñooy miraas seen bopp jox seen doom yi ñu jël gaal gis nga li nga wax lu tax dinaa la ko dëggal mhm. euh, da ngay gis koo xam ni bu ngeen waxtaanee dafay rëccu quand tu lui demandes si c'était à refaire mun la duma ko def mhm. kon lan moo la ci dugal mun la bëgg tekki teral samay waajur parce que su ma xëyee sama yaay toujours daf may ne xoolal sa nawle bi ci koñ bi. Mhm. kon effectivement man dama defe ni sax parents itam dañ ci am part de responsabilité parce que la majorité koo ci waxal da nga ko loo doon def Sénégal mun la dara nu la indi mu wax la voix bi ko indi te voix bi ko indi xaalis daf ci bokk. Mhm. soo ko nekkoon noo def ba ñëw en général un te sama yaay dafa dama di foog ma fay ko. parce que dafa jaay càq takkaayam pour ma ñëw. autre te dira sama pa wala dafa teggi nat. Mhm. autre te dira sañu kër dañu cotiser pour ma ñëw. donc effectivement boo ma laajee est-ce que parents yi dinañ ci am part de responsabilité moi je dirais que oui un peu. Mm-hmm. léegi nag dama bëgg nga nettali ñu tuuti parce que du ñàkk comme en tant qu'interprète. Mm. ñoom bu ñu yegsee. Mm. xëy na ñooñu ñooy survivants yi. Mm-hmm. am na ñu des. Mm-hmm. mos na la nettali ñoom li ñu dund si gaal gi. toujours toujours kenn nettali ma loo par exemple y' a mm. koo xam ne il a voyagé avec son frère. ñu bokk baay et malheureusement le frère n'est pas arrivé. parce que pourquoi parce que ñoom dañ lay wax ni gaal gi amul rébellion par exemple euh, ñi ñi nga xam ne nous foofu boo demee on Europe on les appelle les supposés patrons mooy par exemple ki nga xam ne dawal na gaal gi bokk na ci patron ki nga xam ni par exemple dafa joxe lekk bokk na ci patron moteur bu yàqu sax ci ko réparé c'est un supposé patron emprisonné nañu nit ndax loolu mhm. parce que après bu enquête bi soree ñooñu la ñuy tuddee les supposés patrons et en général xale yi dañ lay wax ni patron yi c'est-à-dire que ñi nga xam ne moom ñoom la ñuy chargé sont des responsables du ñu bëgg coow parce que boo fa naree di rebelle wu di indi coow dañ lay ne boo ñu naree rey ñu rey la donc booy bi nee na moom il a voyagé avec son grand frère mais yeewu gisul frère bi donc bi mu gisul le frère parce que nee na veille bi frère bi dafa commencé woon di yuuxu di commencé délirer waaye di délirer complètement mhm. donc nee na ba guddi moom nelaw na te frère baa ngi ci wetam. mu yeewu gisu ko mu xool xool gisu ko bi mu commencé kaas dañ ko ne boo bëggee ñu def la ñu def sa frère. ok donc yooyu yëpp da ciy am. après orientation bi waxtaan ak ak moom yegg si na. Hmm. Eh, dafa feebar yóbbu nañ ko hôpital peut-être pour faj ko. Hmm. Eh, bu fekkee ni tey jii feebarul également tamit. Hmm. est-ce que ñoom ban avenir la ñu am ñooñu yegg si est-ce que dañ leen jox kayit fan lañ leen di yóbbu si lan la leen dugal nag comment sa se passe. c'est-à-dire que bu ñu yegsee Euh, première première phase bi mooy il faut que ñu li ma la wax. Mhm. essayer de faire de savoir qui est qui. Mhm. loolu ça ça dure deux jours à peu près ci police donc euh, au bout de deux jours bu ñu fexee ba xam kenn mooy kan ba pare dañuy dem devant le juge. Mhm. bu ñu demee devant le juge après nag foofu la ñuy euh, le juge bi di décider ku nekk son sort par exemple si t'es un mineur les mineurs en général ne sont ne vont pas dans les centres dañu am seen centre à part. mooy les centres les en général on ñoom dañu am centre boo xam ne centre d'insertion la boo xam ne ils t'aident à dañ la fa jàngal métier genre ba ba ngay am sa 18 ans ñooñu c'est leur centre à part mais suñu détecte ni majeur nga kooku da ngay dem ci centre bi nga xam ne c'est pas non plus une prison c'est juste un centre d'internement 60 jours au bout de 60 jours dañuy statuer si ces cas yi benn par benn mm-hmm. si ils arrivent à savoir exactement tu es qui tu viens d'où est-ce que am nga document bu la mën a delloo dañ lay delloo et si au bout de 60 jours il n'arrive pas à savoir exactement yaay kan foo dëkk yoroo dara lu la ci benn dëkk en général dañ lay bàyyi en liberté mhm. mais bon liberté boobu ça veut pas dire qu'on te donne papiers non mhm. parce que tu n'es personne tu es mhm. une personne non rapatriée donc euh, en général mooy boy yi nekk ci mbedd mi rek. loolu mooy tax aussi tamit duñ ñu bare duñ joxe seen identité. seen seen exactement loolu dafay tax ñu bare duñ joxe seen vraie identité malheureusement. Euh, tey euh, ban appel ngay lancé euh, lan nga mën a wax ñi nga xam ni ñooy internautes yi et puis sénégalais yi yi nga xam ñu ngi lay seetaan. waaw man li may wax rek mooy li ma li ma li ma faral di wax moi je crois que peut-être qu'il y a pas de solution mais am na solution la solution ki ma ki ma gis ñaar la benn bi. c'est d'essayer de trouver du travail pour les enfants pour que defe naa ne ku am loo def man maa ngi fi Sénégal depuis presque trois semaines gis naa ni ñi nga xam ni am nañu lu tuuti lu ñu téye ñu ngi téye di ci was lu àq yàlla tax di ci jëm sutur suturloo ñi ko amul peut-être ñooñu ñooy toog di waxtaan ci sous l'arbre à parape wala autour du thé di seet nu ñuy organiser wu pour génn ci dëkk bi moi je crois que ñooñu bu fekkee ne mën nañ leen jàppale wutal leen ci lu ñu nekk ba tax seen xel yi tukki du ci nekk loolu ce serait une très bonne idée la deuxième solution que peut-être je vais appeler solution mooy nañuy defar des ateliers de d'information seet ñi nga xam ni c'est des acteurs ou des actrices directes de l'immigration clandestine et surtout ñuy waxtaan ak ñooñu parce que moi je dis euh, soo jëlee xaalis def ko ci atelier de sensibilisation te kii joxe information bi c'est pas un acteur direct de l'immigration clandestine kooku day ñëw rek briefé xale yi rek jóg dem mhm. mais su fekkee ne am na acteur boo xam ne ak ku dund la ku dund immigration mhm. wala koo xam ne mi ngi liggéey ci ñi ñi nekk ci immigration bi moi je que kooku information bi muy joxe wala sensibilisation bi muy def peut-être mën na toucher xale yi ba tax duñu dugg ci gaal yi di dem bal on va terminer parce que loolu mënuma ko tëb mm. Europe bu njëkk ak léegi cest à bu njëkk ñu mu meloon ak léegi est-ce mm. que jar na sax immigré ji c'est-à-dire entre jël gaal. moi je dis que non. man man man personnellement def naa vingt quatre ans en Europe. Mm -hmm. j'ai fait vingt quatre ans en Espagne aux mhm. îles Canaries. Mhm. la ma gisoon d'antan du li am léegi xale yi fa nekk te sonn nañu euh, këyit bi yomb maye ko yombatul comme c'était avant. Mhm. xëy na am na yoo xam ne Union européenne moo koy exiger directement comme son regroupement familial wala yooyu bu la amee këyit c'est bon mais xale yi liggéey ba fa amoon. amatu fa amatu fa boo gisee les les fameux ni ñuy waxee les mantero coow li amoon euh, Madrid temps yële euh, mais ñooñu li ñuy def dafa neexul mais mënul nekk koo xam ni dem na ba dugg ba pare ba toog mais day fay loyer day lekk day naan léegi nag pour mu dund tubaab bi am na lu muy maye am na lu mu dul maye da ngay obligé jël sa drap dem fekk avenue bu mag boo xam ni boutique ba fa nekk euh, saag ba muy jaay xëy na mi ngi jaar saag bay ngay jar 1000 euros nga ñëw lal sac bi à côté di ko jaayee 20 euros mais loolu du neex léegi nag policiers yi dañuy nekk tout le temps derrière les enfants loolu mm. mooy indi problème bi. Euh, kañ nga ñëw aussi euh, Sénégal. kañ euh, maa ngi fi depuis 3 semaines naka nga gisee réew mi. réew mi ni ma ko gisee réew mi ni ma ko gisee mooy li ma wax rek il faut mm. que xale yi gis naa ni que y a une jeunesse mm. vraiment innombrable mm-hmm. boo xam ni ni ma leen gisee defuñu dara. et que ñàkk def dara boobu man en tant que actrice de l'immigration clandestine man dama jàpp ñàkk def dara boobu moo tax xale yi di xalaate dugg ci gaal yi di dem. Mm-hmm. da ngay politique. man euh, je peux dire que oui je peux que non aussi parce que tamit euh, ci élection législative yi euh, dem naa en tant que candidate de l'union citoyenne et effectivement gagné naa sama gox. Mm-hmm. <laughs> j'ai gagné yeneen parti yu mag yi fa nekkoon. donc je me limite à ça pour le moment. ndax amoo ñu lay ñu ñu lay ñu lay démarché pour que élection présidentielle bi nga jàppale leen est-ce que am. Euh, am na benn benn am na benn benn am na benn benn waaw. Euh, kii woo ko. non beraguma am na benn benn. am na benn benn am na benn benn waaw. merci beaucoup. jërëjëf merci à vous. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. di leen fàttali rek moom la ñu invité woon di Awa Ndiaye madame Awa Ndiaye bu Tenerife ndax euh, waa Tenerife xam nañ ko. Hmm. Île des Canaries xam nañ ko également euh, mu nekk nag présidente association Diapo. Euh, nekk également vice-présidente de la coordination des associations des Canaries hmm. euh, nekk interprète également di ko jaajëfal baax a baax a baax hmm, euh, si li nga jaar tey si Dakar 92 point com hmm. di leen dig daje prochainement ak beneen daanaan incha allah